buuse borom kër bi. ah. mais buuse tañ nga dëkk bi. mais lamin kontaan naa ak sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. waaw bala nga balaa ngay balaa ngay balaa ngay kii balaa ngay kontaan ci sénégalais yi dama bëgg nga ñëw ci combat bi. mais kontaan naa ci sénégalais yi Lamine. mais ñëwul ci combat ba pare. lamin kontaan naa ci yi. ci combat bi ñëwal ci combat bi. kontaan naa ci sénégalais yi ba pare dañ ma doon ñaanal Lamine. dañ ma doon ñaanal sénégalais yi dañ ma doon ñaanal hmm. Lamine sénégalais yi dañ ma bëgg dañ ma bëgg barke ah. alxuraanu karim Lamine hmm. sénégalais yi dañ ma bëgg barke Serigne maa bëgg te maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp bilaay walaay taalaay victoire bi sénégalais yi laa ko may mayuma ko hmm. kenn ci àdduna mayuma ko ko ñaari nit mayuma ko ñetti sénégalais yi laa ko may Lamine sénégalais yi laa may victoire bi barke alxuraan Lamine lii ma doon def dafa metti lii gaynde rek a koy def Lamine mhm. cinq cinq round dafa bari mhm. Lamine dafa bari lii dafa mhm. metti de dafa metti nga koy def ak sa moroomu góor boo xam ne ëppoo ko doole ñaar yoon dafa ku ci am ndam war laa gërëm sant la félicité la feetal la Sénégalais yi nañ ma feetal nañ ma feetal nañ ma defal ngan di feet Sénégal nañ ma defal ngan di feet parce que lii doom dafa metti Pape Diouf envoyé na ma benn vidéo sànq bi mu nekkee ci oto bi di jubilé. noonu nañ ma defal fête nañ ma defal ngeen di fête nañ dem monument de la renaissance président de la république génn Marème Faye Sall première dame génn ñu toog defal ma fête lii du lu ndaw barki Serigne Bamba dama jóge Amérique ñëw fii rayante dama jóge Sénégal ñëw rayante booy lii dafa métti Lamine lii cinq cinq round la dafa métti Lamine lii gis nga yeneen gars yi di wàcc fii ak lu ñu koy def dafa ah. métti Lamine lii dafa sénégale yi nañ ma gërëm nañ ma esthétique dugal ma ci ay esthétique yi Facebook fépp félicitation Ketchup parce que loolu lañ war a def lii dafa métti. mais ñu ngi lay félicité. mais ñëw ci comment. ñu ngi may félicité mais ñoom ñëpp nañ ko def seen Instagram yi def ko TikTok def ko fépp ndax suñ ma daanoon tey noonu la ñuy def. ñoom ñëpp nañ ko TikTok. nañ ko dugal ah. Facebook WhatsApp fépp félicité ma lii du lii yombul. seen tur laa yor seen xam nga ñaata lay jar. Ah. ceinture bi vingt vingt cinq mille dollars lay jar dafa seer. dafa ma ñëw rayante ko gañe ko nañ ma defal tànni béer wala ñu defal ma xew nañ ma defal loo xam ne nit ñi dañ may sali kii nit ñi ñëw félicité ma borom xaalis yi génn ñëw toog jox ma ay drapeau jox ma ay kado loolu yëpp dinañ ko cinq. waaw. premier bi joxe ngeen deuxième round bi xaw ngeen a joxe. mais troisième quatrième ko prisé wala. dañu ñëw premier round. ñu xeex xeex bu metti parce que MMA man jànguma ko xaw ma ko règlement yi fii laa ko lijjantee ci cinq jours yi ma fi def. laa dem seeti benn coach bu naan coach élage mm-hmm. ma seeti ko coach boobu moo yor Malick Niang. waaw Malick Niang ne ma làkkatul dem ci kooku. ma dem mm-hmm. kooku wax ma wax yi. waaw bi ma waxee affaire yëpp ma xam mu ne ma. Hmm. soo jàppee tànku nit ki comme zaaru hmm. tegel seize nga boole ko ko loolu trois points la. su fekkee da koo wékk trois hmm. points la. waaw su fekkee da nga koo du dóor ku conc ci bopp dañ lay annulé. su fekkee da koo prise zaaru prise. yaa ngi dégg. mu ne ma su fekkee da nga koo prise genre prise bu extraordinaire six points la comme sa prise extraordinaire wala ay mbot mbot bu extraordinaire loo xam ni tànk bi day jóg comme comme da mbot ko loo xam ne tànk yi na ci air bi genre c'est extraordinaire six points la xaw ma ma ne ko ok mu ne mm. ma bul def bu bu bu wëree bu la wëree bu la bu bu defee quatre appuis bu ko conc ci kanam bu ko jor ci kenam jàngal ma daal ma xam as tuut. Ah. léegi bi ma ñëwee fii. maa ngi nii génn guma yaa ngi gis. Mhm. waaw. Lamine. Ah. conseil dafa baax. Mhm. affaire cinq round la. deux round yi ma xeex ak moom xeex bu metti xam naa ni sonn na la lii dafa metti man tamit maa ngi maa ngi maa ngi génnee suuful bu metti ma toog li ma génnee suuful yëpp. nanguwuma naan ndox ndax man borom jom laa géejawaay laa dëkk du ma ragal mënu ma ragal ma ragal parce que alxuraanu karim balaa ngay xam ne du ma ragal nit diggoon ma ay xeex di ma kot ci mbedd nga xool man du ma ragal fi ma egsi fit moo ma ko may Lamine tey dinaa wax ak sénégalais yi waxal ak sénégalais yi man poussé international laa dama rampé je suis rampage je suis nañu xam ni man dama créer sama life dama ko lijjanti. waaw. te man dama leen bëgg ñu bëgg ma. léegi nag zaaru ndam yi su ma ko amee ñoom ñëpp nañ man koo xeexle ma dugal ko fépp. raadu dinañ mais Bousse ñëwal ci deuxième round bi. deuxième round ñëw. ma daw di ko mbot mu daw takk ma dafa mën a takk. mais man daanaan laa duma ngaakaay bëree. mu jàpp ma gis xoolaatal vidéo yi dina génn gën a leer. mu jàpp ma di ma wéyale may teggi sama tànk muy daw di teg siis may tëb benn par benn tëb di teggi muy daw di ma kii may teggi après laa ko doon tëgg mbotu deuxième pied mu wër ma ndomba parce que yaram bi defa niin mm-hmm. bi ma wëree ndomba laa bloqué conc bi fii ah. fii laa bloqué nii nii teg ko prise du quatrième pied prise du quatrième pied gëj nga ko gis ci maa ngi koy soog gis. léegi bi ma ko prise prise du quatrième pied ci laa bloqué loxo bi ci suuf moo tax mu yéeg sama kaw te mënul def dara. parce que course bi ma jàngal ma nee na ma est-ce que mën nga prise bi ma ne ko mën naa ko ak yeneen. waaw su ko man dama rampé. rampé nga kay tey moom rampé nga. léegi bi ma ko prisé costume ne ma boo ko prisé bul bàyyi loxo bi ndax prise boobu saa yoo ko defee yaay féete suuf mais yow am nga six points ba pare mais yaay féete suuf te bu jógee mën na la gaañ ma prise ko féete suuf ba pare bloqué loxo bi ci sama pokotaan bi laa ko bloqué mu mel ni ku koy damm léegi tubaab yi ñii ay juge international la ñii état moo leen fi indi du ay juge état moo leen fi indi ay tubaab yu yu def MMA international le